tëj nga ko mooy euh, kaw Ousmane Sonko mi nga xam ne ni aussi tey boo demee këram cité kër góor gi ñu ngi ko sampal ay ay barrière depuis euh, ay fan yu bëri ñu ngi foofu mënul euh, déplacé wu et tout moom itamit kaam suscité beneen débat day bokk du bokk ak les propos yi nga xam ne ni le président de la république tenir na ko lors de son adresse à la nation mu ne daal dina fexe ba ñu exé exécuter les décisions de justice te moom moomu di Ousmane Sonko aussi ñu condamné ko à deux ans de prison ferme mais kaam nan nga ko jàngatee ak tout ce qui tourne autour les propos du président il faut exécuter les décisions de justice waaw euh, man lu ma gëm moom mooy démocratie euh, ñaari mbir ñoo ko lal muy apaisement ak modération maanaam dalal ak bañ a ëppal saa yu coow jibee saa yu violence amee moom mooy jënd nañ ci yoonu démocratie ñu ngi ci leneen ma jàpp ni tey président bu ñu dundee événement yu ñu dund ñu gis li fi am mu gis tolluwaayu dëkk bi lu ma doon xaar ci moom moom mooy bu génnee ne duma ma bokk euh, mu bañ ci yokk ay menaces wala ay xuppaate parce que loolu lu ñu jëmale fenn tey mbir mbir mi moom mooy daa am situation bi nga xam ne moo ñu yóbbu fi moom nangu na ko tey le fait mu ne nangu na pour ñu réviser procès wu Karim Wade nangu na pour ñu réhabiliter ko nangu na pour ñu réhabiliter ñoom xalifa sàll mooy nangu na ne moom tooñoon na leen moom mooy nangu na jël na justice mu ko juste pour xañ leen ñu bañ a bokk ci élection nangooguñ ko de moom ci boppam maanaam du waxu ko mhm. mais ci jëfin bi da koy gis lu koy biral lu ko fësal moom mooy euh, ci at yi passé euh, rapport périodique bi nga xam ne moom la Sénégal di présenté au niveau du Conseil des droits de l'homme am na benn expert bu taxaw jël kàddu interpeller délégation au Sénégal benn magistrat bi nga xam ne mu ngi ci woon di représenter délégation bi lañ ko laaj dafa nekk lu leer nañ dogal bi nga xam ne moom la groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire joxe woon daanu na euh, da ngeen amoon ab ab pour jëfe ko wax leen ñu est-ce que nar ngeen ko jëfe ak fan ngeen ci toll bu dee yéen a koy jëfee kooku nga xam ne jàpp na ne magistrat la dignité du ko may mu ne groupe de travail ci lu mu xam ci yoon jàng ko avim obligatoireul mu ne ko pare nañ pour jëfee dogal bi danañ ko réexaminer ba mu yegsee lu ci topp dañ koo dàq dëgg la wala dëgg pourtant kooku tey laataa ñoo réhabilité ñeneen yi mais kooku tey waroon nañ ko dugalaat ci place am baalu ko parce que dañ ko jox dëgg donc boo may wax ne ñoom nanguwuñu ko donc lanu bañoonu ci kooku ba nga xam ne dafa def rek wax ko ñoom moom la ñu def projet le loi dëgg ko ne nag urgence parce que tey jàpp nañ ne politiquement peut-être ñooñu peut-être tey ñu bokk loolu quelque part mën na ko arranger ci nu muy organiser candidature yi wala nu muy tase opposition bi donc loolu nag dañ ko war a sib moo tax ma ne la démocratie lan la moom mooy euh, modération mais aussi apaisement la bu ñu dundee lu ñu dund ba dëkk bi yëngu man lu ma doon xaar moom mooy ñaari mbir ci moom mu bañ a am benn lecture gis-gisu sécuritaire parce que dafa génn ne euh, attaque organisée le contre état. force occulte force occulte ba sànq suba gisuñu leen loolu jaaxal nañu. bu dee ñu ngi fi ñoom di toj dëkk bi depuis ñaari at ba sànq suba gisuñu leen on peut demander mais que fait l'état mais ñu génn foofu yépp tey ñu ne ñooñu ay comploteurs lañ. moom dana ci taxaw mais dafay fàtt ni lan moo ko sooke nit ñi yeewuñu rek génn di toj dëkk bi bu ñu bëggee avancé foog ñu nangu xool la réalité 2021 lu tax la fa xewoon dabaat ñu parce que dañ ko nëpp nëppaloon mbir bi am na ku ñu doon euh, tuumaal euh, coow jib ñu jàpp ko Euh, pression am médiation sociale am ñu génnee ko mais dañu bàyyi procédure bi mu continuer di wëy bu ñu ko taxawaloon walla ñu regle ko foofu mais du ñu yegg ci événement wu 2023 yi ñu nëpp nëppal ko loo gis muy dem bésam dana ñëw ba àtte euh, bi daanoo aussi gis nañ ñu ci topp tey ñu taxawaat ñu ne atte boobu danañ ko jëfe wa kuli alin su leen neexee mais nañ ko jëfe peut-être danañ xool fan la ñuy yóbbu ma jàpp ni loolu duñ ci gagné dara tey lan la ñu ne mooy atte boobu ñu ne corruption de la jeunesse maanaam ci olof sax xamuñu noo koy si firee parce que day day day mel ni da ngay ger xele bu ndaw Euh, loolu même sa dégg-dégg lu ci leer mu nekk xeetu infraction bi nga xam ne euh, wax ko Sénégal fii. Mhm. ci contexte boobu man dama jàpp ni amul solo amul maanaam. Mhm. lu tax mhm. Sénégal code de la famille nee na boo amee fukki at ak juróom-benn mën nga sëy boo nekkee góor mën nga jël soxna boo nekkee jigéen mën nga am boroom kër boo amee dix-huit ans. jàpp nañ ni muskalaf nga ku ànd ak sagoom nga mën nga voter mën nga sax jël ay poste de responsabilité boo jógee foofu ñu ne boo demee nag ba am fukki at ak benn ñaar fukki ñaar at ak benn ñu ne ba boobu mën nañ la ger maanaam matatoo xam nga loolu yenuwul maanaam ci nga xam ne boo amee 6 ans mën nga sëy mais ba de ba de ba ba 21 ans ñu la defee loolu corruption la mais on se demande où se situe la vérité que nga xam ne matut et pourtant Sénégal ci boppam ONU teg na ko pression ne ko même 16 bi dafa teer ci xale yu jigéen yi loolu da leen di indil ay problème ay complication yooyu jéem ko yëkkati nga def ko 18 ans xam nga lu Sénégal tontu non man su ma de la famille dama koy appliquer dafa nekk li nga xam ne dafa jaxase modernité ak suma tradition mu bañ ne du ko soppi léegi nag laaj buy samp moom mooy est-ce que jar nañuy yëngalaat dëkk bi ay bakkandi ci rot pour ñu ne infraction boobu la ñuy fàggu et que loolu tey boo ko gisee même ci anam yu mu amee da ngay xam ne lépp ay circonstances privées la nekkul lu xewee ci mbedd mi Euh, mbirum droit de l'homme nag daa am benn distinction bu muy teg mooy li nga xam ne yaa ko moom mbirum kër la mbirum néeg la li nga xam ne ci mbedd mi la euh, tey ñoom seen argument bu ñu développé day mel ni dafa am ingérence pouvoir public bi ci vie privée wu nit ñi du moment où viol bi bàyyi nañ ko dama jàpp ni mbir mi dañ ko waroon banque mu frankulaayu